17 mai 1961 maanaam un an après indépendance du Sénégal Amadou Ba di actuel premier ministre moom la nguur gi tàbbi pour mu nekk candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux élections présidentielles de 2024 waaye kan mooy Amadou Ba Amadou Ba Sénégal ñëpp xam nañ ko Amadou Ba moo nekk premier ministre du Sénégal depuis le 17 septembre 2022 poste bi mu succédé kii di Boun Abdallah Dionne avant moo nekk loolu Amadou Ba nekkoon na ministre de l'économie et des finances du 2 septembre 2013 au 5 avril 2019 soit 5 ans 7 mois et 3 jours bi mu jógee foofu nekkaat na ministre des affaires étrangères et des sénégalaises de l'extérieur le 5 avril la fa nekk 2019 ba le 1er novembre 2022 maanaam un an six mois vingt sept jours la fa def nekk na aussi député groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci législature bi ñu ne nii foofu juróomi fan dong la fa def cinq jours ndaxte le douze lañ tàmbale le dix-sept mu démissionné jox postam kii di Abdoulaye Diagne président du maire d'ailleurs le 17 boobu noonu muy 17 septembre 2022 ci la ko nguur gi di président Macky tax na pour mu nekk premier ministre du Sénégal alors confirmation bi nag tey la rek mais Amadou Ba bañ ko tabbee yàgg na ndaxte am na action gouvernement yu bëri depuis 2022 moom moo koy doxal ndaxte depuis 2022 élection locale yi Amadou Ba moo nekkoon coordonnateur national de la coalition boo ko Yaakaar te également gis nañ ni récemment activités yuy am yëpp au niveau national ak au niveau international même daje chef de d'État yi conférence vidéo Amadou Ba muy représenté Macky Sall donc tànn buñ ko tànn day confirmation la rek donc ñu jublu ci leneen muy jëm jëmale ci élection présidentielle 2024 à bientôt chers amis ngeen abonné ba ci cloche de notification